koy préparé defal sama jour anniversaire le 12 mars incha allah mooy gàmm gu mag gi nga xam ne mooy euh, gàmm Serigne Jim Ndiaye waaliw kaamiloo ca ka euh, ca ne yal na yàlla euh, xare ko ci àjjana gën a kawe ñuy ñaanal ñëpp nag di ziar tamit suñu papa ji alaaji yan ma nga xam ne nag taalibi sëñ Babacar Si la rabbil taala anhu ñu ngi ko jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram ñaanal képp koo xam ne nag waaliw nga ci réew mi waaye tamit ziar sëñ Babacar Si la rabbil taala anhu bu leen ko fàttali 13 mars lay am ca Tiwaawan muy ziar bu mag mbokk alhamdulilah rabil alamin le président Macky Sall jël na décision boo xam ne Madické Niang fii la ko taxawoon wax décision ba analyse Madické Niang kii nga xam ne mooy Macky Sall mujj na ko réaliser stade bii nga xam ne suba incha allah ci kàttanu yàlla dana am tur bu bees ku ko tuddee yelloo na ko ñu seeti Madické Niang ndax dafa am mbégte war a day kontaan war a day gërëm Madické Niang ci wax ji nga xam ne ak xalaat bi nga xam ne Ablaye euh, Macky Sall am na ko ñu seeti Madické jërëjëf jërëjëf kontaan naa maa ngi am mbégte boo xam ne wax dëgg yàlla tey sama xol sama xol dafa sedd tey sama xol dafa sedd ba nga xam ne tey tey dama toog dugg ci ruq mën kan yéen daal di gërëm yàlla suñu borom daa gërëm yàlla suñu borom parce que dafa am loo xam ne démb bi ma ko déggee wax dëgg yàlla xam nga sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa général ku murid yàlla fi yàgg te wér fi yàgg te wér yàlla fi yàgg te wér ku ko wax tamit yàlla nga fi yàgg te wér parce que dafa am loo xam ne dama taxaw wax ko Sénégal ne président Macky Sall lenn la desal président Ablaye Wade daal di koy darajalee loo xam ne ku ko dégg tey da nga xam ne na président Ablaye Wade tey delloo nañ ko njukkal. delloo nañ ko njukkal parce que lu tax ñu delloo ko njukkal le président Ablaye Wade daf fi def loo xam ne tey tey tey stade bi nga xam ne moom la Ablaye moom la Macky Sall jël na ko da koy tuddee Ablaye Wade lak taal la boo xam ne du fay. du Moussa Faye. kuy football ñu ne Sénégal ci ban stade ñu ne stade Ablaye Wade lu xew Sénégal ñu ne stade Ablaye Wade reporter mag yi di tudd stade Ablaye Wade la boo xam ne ca kaw la jëm te day yàgg ànd barke. dama kontaan parce que Macky Sall foogoon naa ne amul nepp nopp géer mm. nekkul naan te waaye science yi ma ko dóor dégg na ko te loolu sax parce que damaa wax rek sànni def sama analyse mu pertinente mu daal di koy parce que tey Ablaye Wade bu yëgee ne xam nga tey njabootu Ablaye Wade yëpp seen xol dana tooy njabootu Ablaye Wade yëpp tey bu ñu tëddee tey danañu ne wax dëgg yàlla ko ku amoon sax loo xam ne dafa desoon sa diggante président Macky Sall da nga jëlale Macky nag kenn du def lu baax ba pare di ko yàq def nga loo xam ne coolo woo xam ne dootul fay Macky nag ma déglu ma dóor la ay science science yi ma la dóor xam nga dafa neex parce que méttiwul ba ma la waxee dama ko wax rek teguñ si matul semaine sax nga daal di koy def mu daal di koy def tey sama xol dafa tooy parce que ñun ñëpp président Ablaye Wade moo ñu njabootee parce que sëñ Saaliw tey tey tey ku tudd tey nga dégg ñu ne président Ablaye Wade delloon nañ ko njukkal tuddee nañ ko stade bi xam nga sa xol dafay féex. waaye kontaan di sant yàlla parce que man jëmm ju xeebu gii tey ma yëkkati benn yëkkati benn wax bu respecté kay wax tey Sénégal ñëpp dégg mu wóor ne man li may wax nii waxuma ko ràccale sama kanam ndax sëñ Muntaxa ba sëñ Mbàkke xalifa général ku murid dafa wax am na loo xam ne moo dàq politique taxawaay gi ma taxawee loolu ma wax noonu du politique dama ko wax rek mu kon léegi Macky Sall nag bi nga ubbee stade bi tuddee ko Ablaye Wade li si des nag mooy nga taxawal gouvernement nag jot na na nga taxawal gouvernement boo xam ne dañ ci woo ñoo xam ne dañoo bàyyi politique ndax ndigal parce que xam nga nag tey ku jël sama jëmm ji <laughs> sama jëmm ji ku ko jël tey xool ko xam ne ne politique génn na ci nga naa nga xool rek ne ma di ka ñaa doy na ma def ma premier ministre ndaw premier ministre bu bu na eh, amin amin amin waay ay amin waay amin yaay amin yàlla yàlla nangu seen ñaan wax leen ci kaw yàlla dégg leen liggéey Sëriñ Tuubaa rek fa ko Saliou waay Samba القطب ذات أمر mbokk yi tey boo leen gisee suñu plateau gërëm waa Dream Cosmétique ak 1xBet bi nga xam ne ñooy suñu sponsor yi euh, ñu leen di jëmmal ba tey di leen wax ne nag kontaan nañ trop ki nga xam ne moom mooy na Mati nga xam ne nag xam ngeen ko présentatrice la tamit animatrice bu mag la fii ci Télé Futurs Médias ñuy euh, def anniversaire am waaye tamit mu nekk anniversaire